waaw xam nga loolu moom <clears throat> dafa sax ci Sénégal fa dëgg yàlla donc c'est des situations yoo xam nous l'avons toujours vécu ak mouvement bu fi mës a nekk. Mm-hmm. jàppoon nañu nag ñun ñi nga xamante ne toujours dama koy wax ñun waa taxaw Sénégal dañoo boo bokkoon Benno Bokk Yaakaar donc jàppoon nañu ñun euh, après élection 2012 yi Macky Sall su ñëwee dina def coppeeku ci yooyu yëpp mooy changer lépp malheureusement la woon démb. tey la gën a yokk mhm. loolu jàpp naa ne baaxul du loo xamante ne dañ ko war a ñoŋal wala ñu koy continuer vraiment di ko di ko mais on sent pas on sent pas que vous portez ce combat j'ai vu ku mel ne Abdou Mbaye rek tey mu dénoncé ko mais les autres leaders euh, voilà gisuma leen ci trop ci terrain boobu noonu moom laa lay wax noonu cest à que aujourd'hui muy leader yëpp mhm. li ñu leen gën a préoccupé mooy jéem matal seen parrainage donc moo tax nit ñi waxuñu si mais mais si on vous met des bâtons dans les roues aussi ci seen i tournée. non non dina xam nga bâton dans les roues man tey jii am na ñeneen ñu ma ko waxal ci ay plateau. Mhm. mooy que fii ñëpp a ngi si sur le terrain parce que ku toog sa kër doo am parrainage. c'est clair mais boobu ba léegi ñaari nit la ñu dégg ne arrêté nañ leen fii mu Bougane Gueye Dany muy Malick Gakou. Mhm. déggaatuma keneen ku ñu fi arrêté. d'accord donc naa la question qu'il faut se poser mooy le pourquoi jàpp naa Euh, Bougane Gueye Dany bi muy dem Kédougou di jaale ji lañ ko arrêté woon par la suite arrêté tudd ko donc jàpp naa ne kenn ku si nekk yaa ngi nekk si li nga nekk mhm. mais par contre li nga xamante ne moom la euh, Amadou Ba di def di utiliser les moyen de l'État man bi ñu jëlaatee def remaniement daal di koy delloowaat au niveau de la privature man laa xamoon ne lii moo doon objectif bi hmm. permettre ko mu mën a jël les moyen de l'État pour politiquer ko mais li si am solo dëggantaan mooy Sénégalais ñoo yeewu. Mhm. tu es libre de faire ce que nit ñi loolu mënu leen tax ñu bañ a def lu ñu war a def ndax bu doon loolu kese la. Mhm. élection législative yi jaar na fi. élection locale yi jaar nañ fi avec tous les moyens de l'État mënul tax li ñu bëggoon am ñu am ko. Mhm. donc Sénégal yi ba fi muy mujj ñoom ñooy yore le dernier mot donc utiliser aujourd'hui les moyens de l'État. pour organiser maintenant ce qu'on appelle des des des des des des kii politiques. Mhm. Euh, ils ont annoncé une tournée économique mhm. loolu ça n'influence en rien mën nañ def li ñuy def dinañ am seeni militants. est qu'il ne prend pas de l'avance sur vous. non parce que boo seetloo souvent ce que les gens disent mooy que ne Amadou Ba. Euh, projet économique bu Macky Sall PSE bi moom moo ko porté donc tey jii nii euh, bu demee ci gars yi il peut leur dire que ne li ngeen gis ci lu baax c'est moi donc élisez moi et vous verrez la suite. maintenant problème bi mooy que. alors que vous vous ne pouvez pas encore faire koy fal xayma bi ñuy njëkk a xayma mooy li ñuy dund tey ndax baax na ba war a xaar loo xamante ne dafay continuer xam moom dafa ñëw ne c'est le candidat vraiment qui doit continuer les projet et réalisations du mm. président Macky Sall dëgg la mais balaa nga koy fal pour sa suba da ngay ma sa tey. ndax si yow sa tay xayma bi gars yi kontaan nañ ci ah. ah non wala gisoo loolu ah, déedéet <laughs> gis nga Mamadou Awa kuy fay courant xam nga ne nit ñi kontaan nañu. Hmm. kuy dund xam nga ne njëg mi metti da kuy fay location xam nga ne tu suuf hmm. et aujourd'hui ñëpp xam nañu ne les moyens ne sont pas là aujourd'hui nga jël un fonctionnaire qui perçoit moins de trois cent mille francs. Hmm. pour un deux chambres benn deux chambres salon boo amul deux cent cinquante mille francs doo fa. ça nga war a fay courant fay ndox. di fay location. yore say doom feebar fañ. dabale na nguur gi ku la wax ne la neex na daf cee bokk. nit ñi talatuñu kenn kenn ku si nekk sa bopp nga tal. Mm-hmm. dire que nag moom dafay assurer continuité dama ne na tant que mu ngi porter combat boobu du ci am benn aboutissement bu baax. que mu yor les moyen de l' état que mu jiituñu sur le terrain il est libre de faire ce qu'il veut avec les moyen de l' mais ça ne servira léegi léegi. s'il vous mm-hmm. plaît rek. oui oui bien léegi. Euh, suñu doyen bi ah. nga xamante ne moom moo nekk Pastef mbay mm, mm. nee na ñoom bu desoon cinq jours sax ñoom dinañ am seeni parrainage pourquoi parce que ils ont des militants qui sont là ouais. nous de Taxawu Sénégal nous avons nos mm-hmm. suñu militants yooyu noonu seen tournée économique yooyu mën na leen convaincre ñi nga xamante ils sont sceptiques mais ñooñu après dañu leen di boole. donc vous sur vos militants pour le parrainage. donc am na ñoo xam ne ils peuvent pas dire autant parce que aussi nee nañu parrainage du mën nga faral nit ki juste parce que il te l'a demandé parce que da ngeen xamante ne loolu loolu loolu pour cent lay doon si askan bi. Ah. dina am. Mhm. mais lu 3 pour cent du ci du ko dépasse. Mhm. 95 pour cent bi présomption de vote. ki nga gëm moom ngay voté la wóoluwul. facile ñu la voté du ñu la parrainé les gens ils sont libres tu viens chez moi je ne peux pas mhm. mais lan laa lay wax parrainé naa ba pare da nga yéex a ñëw genre. donc ñun tey jii ñi nga xam ne dañuy parrainé donc tournée économique yooyu nga xam dañuy parrainé keneen ak keneen. tournée économique yooyu yóbbu leen. Mhm. donc li ci am solo dëggantaan mooy que fi ñu jëm ak nit ñi baax na ñi ñi wax ko. Mhm. mais nit ñi pour ñu gëm fi nga jëm ak ñun dafay fekk ñun ñu xayma ci li ñu nekk tey. merci beaucoup Ousmane Sonko.